soo bëggee di seetaan suñu ay vidéo demal youtube nga tappe daayira Wakana Haqqan facebook nga abonné nag te fàtte ba si kolti notification bi dina waral vidéo bu ñu dugal nga mën ko am ausbillahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim sadid lisaani nawi janaani safi amaani wasi baraayi barke borom Touba Ahmadou mbokki julli di mbokki taalibe yi rawatina mbokki taalibe nga xam ne yéenay bàyyi xel seen seen YouTube daal Wakana Haqqan TV noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar mu mel ni eh, tey jii ñu ngi fii ci géejawaay di liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira ñu ngi koy baaxoo di amal dimanche bu jot ci weeru koor yi muy waajal ay xewal ci nu mu gën a jàppande ngir euh, jox ko mbokki talibe yi nga xam ne wala doomi aadama yi nga xam ni ñoom lañuy ñuy dajeel ci mbedd mi ci waxtu dog wi mu mel ni waajaloon nañ ko ci dimanche bu njëkk bi fële ci Touba Maris euh, tey jii ci dimanche ñaareel bi ñu ngi fii ci Touba Géejawaay waaye niñ baaxoo di gisee liggéey bi rek muy di koy waajee ci alxuraan ak xasida ak bernde ku ne xam nañ ni loolu mooy mbiru sëriñ bi euh, jëriñ sëñ Massamba Fall mi nga xam ni moom mooy jiite wàllu culture di wàllu alxuraan ak xasida ak ñim ko àndal ñëpp ñuy seq ak ay ay kàddu ci kenn ci ay ndawam rek di sëñ Massamba Sarr mi nga xam ne tey gox bi ñu ñu ñëw moom moo fi dalal sëñ Massamba gis nañ diiru bañ yegsee ci suwaak léegi yéen a ngi ci alxuraan ak xasida mu mel ni noonu lañ ko baaxoo defee te noonu lañ koy bëgg di defee liggéey bi nekk liggéey bu am solo lan nga ñu ci mën a wax rawatina diggante koor ak alxuraan ak ak wàllu bernde. waaw auzu billahi min shaytaani rajim wa inni uhizuha bika wa zurriyataha rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun barke borom Touba suñu xaadim ñi ngi siyaar bu baax a baax di siyaar mbokk taalibe yëpp comme ni mel ni mbir moom daa kawe lool ci kanamu mbokk taalibe yi ndax euh, xamee wuñu woon ndakaar lii ñu fi def daanaka buñ koy gisee te léegi sax la bari waaye Cheikh Ibrahima moo ko daan def te la ci ëpp nañ ko daan def mooy njaareem ak Touba waaye mu mel ni léegi daa gën a yaatu ca gox boo dem rek di gis nga ñu mel lu mel ni ñu ko koy taxawal men nag daara ji moom da cee am cër boo xamante ni dafa bokk ci événement yu yu gën a mag yi yi nga xam ne da koy taxawal te loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon ne fa man temps man xëya a li man la ko xat-xara a ca gàmmu ga day ñëwaat ci lii rek la mu waxoon ni si waakaan xakan ne wajan fitara foo saw mi daanaka mën nañ ko ci amee ndogu loo xam ne mën nga ci amee loo xam ne day xaw ko sax ka nga xam ne moom daa yoon loo woor kon joxe ñam moom c'est c'est yoon yi dafa bari alxuraan yoon la wu nit di àggee ci yàlla xasida yoon la wu nit àggee ci yàlla kurus yoon la wu nit àggee ci yàlla julli yoon la wu it àggee ci yàlla defar ay nit it wala jàngale xam-xam lu nekk yoon la woo xam nit mën na ci àggee ci yàlla waaye moom dafa dafa soppi woon wax ji mooy nee na mu jëm jamono bu mu ci demee dafa am ñaar yoo xam ni boo bëggee gaaw àgg ci yàlla moom mooy tax nga gën a gaaw àgg ci yàlla muy nangu loo defut ak joxe njam naka mu ko waxoon mag moom nga xam ne da ko bëggoon wax da ko waxoon ni äh, man de Fall damaa bëgg a dab ña nga xam ne mag ñe ñoo fi ñëkkoon ta lañ doon def ngir ag ci yalla man loolu mënatuma ko mu bindal dabe mu bind dal bind baa mu def ci ñetti tombi nga xamné ndab ndab lay nek def ko bee def masque sukun mu masque mu masque ko bi bi ko liré mu nek ndab mu dabé ndab kon ku bëgg dag mag ña moom da ngay tok rek di joxé lool nak day mel daara Wakana Haqqan ñoom degg nañ ko ndax yàggunoo sosu waaye saa su ne kuy lim daar yi gëna mag dang leen dang leen tudd lool nak ak sante la go xamni du ak jambar waye ndimbalu serigne bi la ndax serigne mom da ngay tambali rek ku ci nekk la ngay def moom moo la koy xirtal ba mu mel ni yow yaa ko bëggoon fekk ni sëñ bee ko tànnal nga di ko def kon dara nekkut hasard mu mel ni nag bu ñu xëyee ba tey ñoom ci wàllu culturel ñun loolu lañ ko ci nekkee mu nekk ni ko sëñ bi bëggee muy alxuraan moom dara du ko jiitu ndax wax nañu sëñ bi bu waxtaan ndax def ak tëjooyee muy tëju ku ñëw ci moom lim lay wax mooy lim na sëñ ma Massamba mooy ku fi indi laaj na ngeen ko tontu lu waaye di wax na ko wax ma sàmba lu waay di wax na ko jox ma sàmba bu dee ku indi alxuraan nag na ko nama ma lii nga xam ne sëriñ bi ñun la ko taalifal nga xam ne ñun murit rek ñoo ko moom doon ko ñëpp xaj nañ ci sax waaye ñun nag dañ cey gën a yooyu ku mun a doon ndax xewal la joo xam ni waxuma la murit waaye ku nekk rek yéefar bi sax mun mun na koo jàng ba texe ndax irxam jamee alwara ko jàng xam ne yéefar sa xasida mun na koo dimbali waaw kon nag bu ñu joxee alxuraan ba noppi moo tax ñu yaatal alxuraan ñu yaatal xasida yi wakaana xaqan ak bu nuuru daaree ni lu ne rek tuux fa toog si lu ne gars yi jàng ko def lépp nag addi Sëriñ Tuubaa te yàlla rek tax boole ko ak ñam wi waaw comme nag li ma waxoon sànq mooy fu nekk daa am yoon woo xam ne mu ngi cee àgg ba jaar àgg sunu àgg sunu borom muy alxuraan yoon la xasida yi yoon la joxe ñam yoon la daje bi sax yoon la ndax ajamaatu jamaatu la la borom xam-xam di wax daje bi rek bu ñu won waxtaan ba ngon ku nit bi sax loolu rek yiwu la rawatina nag jàng fi alquran jang fi qasida joxe fi ay ñam te ñam yi wax nañ ni kenn yalwaanu ko kenn kenn gàcc kenn murit ñu ah. ko joxe seeni poos moy bénéfice beneen ben moy dañ koy joxe ko mu jeex tak mu defee ñu ndogoor barke Njaga Mbay du ci giñ caaxaan lepp luma ci wax la Njaga di ko joxante laay Njaga mooy joxe ndog yo xamni koko jox xanaa lu mu kawe kawe kawe day méngoog la muy koo këram waaye du ko kawe moom du moom lii am naa lu ko gën xanaa kay dañuy méngoo bu dee baax na kon loolu bu ko nit di def moom daanaka taw féex la li ñuy wax xayru xayraat ay ngëneelu ngëneel la yoo xam ni euh, sëriñ bi rek moom moom lañ koy seereel waaye sëriñ bi moom moo tax ñu ko def kon xëy na euh, mbooloo mi moom day mbooloom sëñ bi euh, manee su la wax lépp man nax mbooloo la moo xam ne dafa doy baar te mbooloo moo xam ni bokkuñu benn barab ku ci nekk dañoo bëgg daw jógee ci ay bërëb yoo xam ne yu feccantikoo la ñii Touba ñii Dakar ñii Kébémer ñii Louga ñew jadi, bi ba tey sax xamanté gi des na ndax mourid mom dé su ko xam ndax ku nekk sa kër la ngay défal sëñ bi yow rek ya ko xam fa nga tudd sëñ bi yow rek ya ko xam moo tax kon nañuy ormalante di joxante Jadi jadi muus amaan lépp ndog buñ joxe rek yàlla nekk junniy koor ci ñun barki sëñ allah mu melni kaddu kàddu yi mënutoon a Euh, tuwarkaal mu mel ni mboolam daayira Wakana moom dafa del dafa dal xel lool ndax ci pàcc guñ bëgg a liggéeyee rek am nañ murit bu taxaw bu bu mën a féete ci ci wàllu woow yi mu mel ni kàddu yi nga wax tegu na ci xam-xam tegu na ci ak bi te it rek mooy sëriñ bi. ndax mel na ni yéen ñu topp ci ginnaaw sëñ Massamba Fall mi ngi baax yéen a ngi doxal yéen a ngi rafetal yéen a ngi dimbali jaam ñi eh, ci ci li ñu seeq macha allah ak lu jëm ci wàllu joxe ñam li nga ci wax lépp am na solo yal na sëriñ bi nangul ñu eh, yokk xéwal bu baax a baax te liggéey bi ñu gën koo jekko barke Cheikh Ibrahima Fall Lamp li nga wax rek dabe moom ndab rek loolu la Cheikh Ibra waxoon ni ma ko waxee woon rek lim baaxoon. jaara fonda so rafa doon asa sax fonda gala a fonda ni yade i musa ka a jógi fonde de kon lépp day day jóge ci moom delluwaat ci moom rek yàlla nañu ko nangul te fulal ñu ko ba mu gën a yaatu lool barke si yoonaan xadim ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal suñu borom nangu seenub liggéey nangu seenub liggéey sëñ Massamba liggéey bi rafet na macha allah ñu ngi ko àndal ñëpp rek tubaarkàlla yéen matt gi ngeen xam ni moom ngeen yor ci say wi macha allah yéen a ngi koy saytu bu baax yal na sëriñ bi defal leen ci ndam lu kawe njort wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. أدي موسى على la Brazil. Bismillah inna wali Allah wa ma tawfiqi ila billah wa ja'al kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawil akhir bi arsida barke borom tuba ahmadu mbokki julli di mbokki talibe yi mbokki yi baye sen sen youtube dairo kana tv ñogi len di nuyoti di len ziarat bu baax mu melni tay ji ñi ngi fi ci diwanu geedja way ci bisi yu am solo yi nga xamni dairo kana khan amal di bisi yi nga xamni mom lañuy jël dimanche Eh, di bis yi waajal ay xewal ci benn ci dimanche di koy jox mbokki taalibe bi yi nga xamni ne la suñu borom dogal dog di len fekk ci yoon wi daal kan xan di ci amal liggey bu ama am solo ci di waajal ay ñam di koy berndel ñi nga xam ñom la dog di fekk ci yoon wi mu melni ni dimanche bi ci koor gi tambale won nañ ko fele ci maris dimanche ñaarel bi tay ji ñu ci ci way dimanche yi ci topp ñu ngi bëgg nekk ci yenen barab waye niñ niñ ko baxo di gisee rek ci liggey yi ci ay ay patch yu ko ci ñi féete ci wàll wi ñi féete ci wàll wi jamono ji ñuy wax ak tamit ñi ngi ci féete ci ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu kafe gi waa ahlu kafe ñi ngi nii boo xoolee jëmm yi de xam ne ay jëmm yu yu Baay Faal ñoo fi nekk eh, ngir waajal kafe gi xam naa dañuy dañuy yëkkati kàddu rek kenn ci seen tur eh, Serigne Xarim Sène ginnaaw biñ la nuyoo ziar la mu mel ni yaa ngi taxaw fii ci makkaan mi nga xam ne la ñuy waajalee café gi xam ne moom lañuy bëgg waajalee ndogu yi ci waxtu yi eh, waajtaay wi ak maanaam sellal gi ak ak lu jëm ci wàllu café solo gi nga xam ne am na ko nga dikkal ñu ci incha allah aousu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax di nuyu waa daayira Wakana Haqqan Alaynaa Nasrul Mu'miniina bu Facebook comme Sëñ Xaadim comme ni nga ko waxee rek noo ngi fii tey ci géejuwaay di liggéey bu am solo bii nga xam ne bañ ko dalee def ba tey ñoo ngi ciy gis ak yokkute at mu jot ñu ngi ciy gis yokkute di ci gis ndimbalu sëriñ bi di ñaan yàlla mu jëm kanam di ñaan itam sëriñ bi nangul ñu ko te ñu daje see ngërëmam comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi fii tey ci kafe gi ku xool jëmm yi xam ne it euh, jëm yu Baay Faal lañ te it ku wax kafe wax Baay Faal te it niñ koy waajale mooy euh, jàpp ba sell jublu ci kafe gi defar ko niñ ko war a defare muy kafe goo xam ne it daara ji moom moo koy defar Euh, loolu tamit ñu ji ko jàllale képp koo xam ne bëgg na kafe goo xam ne kafe gu neex la gu raxul dara rek boo ñëwee incha allah da nga ko fi mën a amee mbokk taalibe yi taxawee ko taxaw goo xam ne taxaw gu am solo la euh, def ko ni ñu ko war a defee ndax kafe dañ ne bu fekkee ne da jàpp ba sell defar ko ni nga ko war a defaree ba mu ba mu ba mu sell nga euh, séddale ko ba raxaskaas yi mel na ni jàng nga kaamilub alxuraan Euh, sëñ Mbay Jaxate it waxoon na ci kafe sëñ Tuubaa ne ko sa benn kaasu kafe daa daq ab commissaire akub commande nga koy sa euh, follee ka sànq ak tëj sa wenn lor woone tëf nit benn rek a fi daa boolee lor ak tawat ak aajo ki ràgg di faj waxoon na itam ci weeru koor wi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ne mbooloo mi gan ñëw na tey ñun ñëpp nañ ko dalal yaatal ko jublu ko ak mbig may ko it ju réy te weeru koor ay ganu mbooleem ko bëgg njëriñ ñun ñëpp war nañu ko may aajo léegi mu wéy mu mel ni lu ama am solo la mu tudd ci itte ak it eh, aajo kon tudd ci mbég itam mbooloo mi gan ñëw na tey ñun ñëpp nañ ko dalal yaatal ko jublu ko ak mbég may ko itte ju waaye te mbo weeru koo lay mbo eh, weeru koo lay eh, weeru mbooleem ko bëgg njëriñ kon loolu yaakaar naa kenn ku nekk war na cee bàyyi xel muy liggéey bu am solo boo xam ne dañ koy def génn ci tali bi jox ko ñi ko aajo woo kafe gi itam comme ni nga ko waxee rek euh, wax dëgg si yàlla taxawaay bi doon loo xam ne lu ama am solo la kon suñ xaadim euh, wax dëgg si yàlla ak cant rek lañ ci lañ ciy amee waaw ah, alhamdulilah jërëjëf euh, mu mel ni ak cant rek lañ ciy amee ci sëriñ xaadim kàddu yi am solo yi ci waajtaay weeg solos kafe ak murid yi nga xam ne ñoom ñoo koy waajal tubarkàlla mu mel ni dal na xel bu baax a baax comme ni mu ko waxee it xam naa xeetu pub lay doon ci kafe gi nga xam ni moom la ñuy waajal di koy joxe café la goo xam ni lépp ci daara ji lañ ko saytoo maanaam euh, ku ko bëgg rek day day amee ci daara ji ndax euh, lépp lépp day sëriñ bi ndax liggéey bi nekkut nekkut rek comme li li ñuy def jàng alxuraan jàng xasida joxe addiya ci la bokk waaye addiya jooj ñuy joxe nag dañ koy fàggu ji fi ñu koy fàggoo fàggukaay daa am ci daara ji ngir matale gu daara ji bëgg bëgg matale fexe ndaw ñu ci nekk am ci luñ jàpp ba at yi nga xam dañ koy laaj mu jëm ci sëriñ bi ñu man di koy joxe loolu itam moo waral xeeti fàggukaay yooyu mel ni eh, jotaay bi murite na lool saf na sëriñ bi sëñ Fallou Diop mel na ni day yëkkat lu mel ni xeeti samfal ngir xam naa loolu ngoon sax la jëm waaye comme ñi ngi ci café gi ak jëmm yu Baay Faal yi day day day yëkkati samfal donte ne ci benn minit la gars yi aw ko bu ko defee ñu ñu ñu ñu ñu xam ne daal niñ koy waxee rek autoraay bu jubee gaar day corne sëñ Fallou la لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله غايب قر لا رم باغلا عيسى أيها لا إله إلا لا لا لا لا لا لا لا باغلا عيسى بايغور لا إله إلا لا لا seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar eh, di leen màggal di leen baalu àq bu baax te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xamante ni moom la ñu dugg tey jii nag ñu ñëwoon fii ci géejewaay ànd seeg waa daayira wakaana xaqan xalay naa nasu muminin ñu amal fii ay ndogu yu ñuy séddale ci jaam yi ñu toog yenn ci soxna yi toog ak kenn ci soxna yi rek muy soxna Oumy Diaw xanaa rek di nuyu soxna Oumy Diaw di la ziar noo def mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. sant borom Touba bu wér alhamdulilah. naka euh, liggéey bi. waaw sant nañ bu baax a baax ñoo ngi góorgóorlu bu baax ci liggéey bi macha allah mbokk taalibe yi ñu ngi ci taxaw nekk ci di ci def Pastef wane ci Pastef lool gu ànd ak sell itam. ndax ku nekk xam na jamono ji ñu nekk muy jamono Covid te wàllum set ak sell moom dañ ko yitte woo lool ba tax na mbokk taalibe yi def nañ ci yitte def ci Pastef bu baax a baax nekk ci liggéey bi di góorgóorlu macha allah ñu ngi ci bisaab bi buy bi ak euh, jinjeer bi macha allah ci lañ nekk di yëngu. waaye ci wàllum cet gi ana naka ngeen ci doxee jamono ji waaw macha allah boo gisee ni soxna yi demee nii rek nga xam ne wàllum cet gi moom tarkaal la def nañ ci Pastef bu baax a baax. ndax euh, ñoo ngeeg suñuy gants te takk nañ suñuy masques itam rek lépp ci ci set ak sell rek ngir lépp jaar yoon rek macha allah. mu mel ne comme ni ko waxee rek jamono ji ku ku xool jamono ji xam ne jamono jamonoy mbas bi lañ nekk te li mu laaj mooy wàllum cet moo moo waral daare ji jël ay matuwaayam eh, ci set gi. Eh, ci bépp liggéey boo xamante ne ñu ngi koy amal ci ci ci ci liggéey ci ci ndogu yi xanaa rek Euh, laajaat beneen beneen soxna rek waaw di laaj rek soxna jaara mu mel ne ñu ngeeg soxna jaara soxna jaara ñu lay laaj rek ah, ana naka ngeen def ak liggéey bi ana di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di santaat suñu borom bu baax di gërëm sëñ bi di am mbégte contentement bu baax baax si liggéey bi ni muy demee wax dëgg yàlla rafet rafetlu nañ ko trop macha allah te jo mënewul ay wax <laughs> waaye yéen si mu mel ne yéen nekk ci wàllum buy bi eh, di laaj rek ci wàllum eh, cet gi mu mel ne jamono ji ñu ngi nekk jamonoy mbas comme niñ ko waxee sànq ana naka ngeen di doxee ci ci ci ci wàllum eh, cet gi daal xanaa jéem kii si maska yi rek na mu kii niñ ko kiiwee rek <laughs> xoolal kenn waaw ñu ngi jaajëfal bu baax soxna Oumy Diaw ne nekk membre ci daara yi Wakana Haqqan Alaynaa nasrul mu'miniin comme niñ ko waxee rek ñu ngi koy jaajafal bu baax lépp rek dañ ciy dox ak cet comme niñ ko ni ni ni ko ñëpp bëggee waaw xanaa rek euh, di leen wan rek yeneen liggéey yoo xamante ne soxna ngi ñu ngi ci euh, di leen jox rek dig dage ci kanam tuuti jaa ngeen jëf mbokk taalibe ñu ngi leen di nuyuwaat te di leen ziar mu mel ni ñu ngi fii ci waañ bi ba tey euh, ci ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum pombiteer bi euh, ñu taxaw ak nag ki nga xamante ne mooy euh, soxna Karafal ñu fas yéene ko laaj rek yenn ci liggéeyam wi ana naka lañ koy doxee soxna Karafal ñu ngi lay ziar. delloo ziar. waaw ñuy laaj rek liggéey bi ana naka ngeen koy doxalee jamono ji waaw bismillah barke borom Touba ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàcc waay di rafet lool seen teewaay waaw bis bi bis bi de macha allah soxna yi bàyyiwuñu dara muy set geek euh, hygiène beeg sécurité beeg lépp macha allah daal fi mu nekk nii daanaka léegi mu mat mun ñu nekk ci wàllu saafu pomme de terre ba xam naa gayeen yeeg jenn jenn ñenn yi moom dinañ ci sawar lool soxna yi moom macha allah daal. ba tey dañuy desandi ci wàllum liggéey bi rek ñuy laaj ndax euh, amoo leen benn jafe-jafe ci wàllum euh, soxna yeeg yooyu noonu. déedéet macha allah fu ñu leen woo moom ñoom ñëppay teew jàpp ci liggéey bi duñ ci daw benn yoon dañ leen di sant rek di leen gërëm wax dëgg yàlla macha allah daal. comme ni ñu ko waxee rek dañ leen di sant bu baax te di leen gërëm ñu taxawaat ñu taxawaat ak keneen ki nga xamante ne mu bokk ci membre yi muy euh, soxna ñaasa euh, moom mi ngi jóge fu sori ci gox-goxaan yi ñu di ko laaj rek soxna ñaasa ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. naka yitte yi. ñoo ngi am tawféex bu baax ki alhamdulilah. waaw mu mel ne yow yaa ngi jóge ci gox gu sore sori ba diwaanu Maris ñëw teewee ci liggéey bi nii euh, ana naka nga dundee liggéey bi. ah koy dundee mooy sëñ bi moo nu ko jaral rek suñu woowoon ba fii ak ba Touba sax dañuy dem ndax sëñ bi moo nu ko jaral liggéeyal sëñ bi moom daf nu jaral lépp ndax sëñ bi rek la ñu am suñu woowoon sax ba fépp dañuy dem. aka sëñ bi moo ñu ko jaral ba fu mu ñu woowee rek ñu dem fekki ji ko loolu la soxna ñaasa wax ñu leen di jaajëfal bu baax a baax xanaa rek ñu leen di joxaat beneen euh, daje rek ci euh, waañ bi euh, wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaw mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyuwaat te di leen ziar eh, di leen màggal lu yaatu ba tey ñu ngi ci liggéey bi eh, ànd ceeg daara Wakana Haqqan moom nasrul mu'miniin ñu ñëw fii ci ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum ginaar gi eh, ñu toog ki nga xamante ne mooy soxna Mbène Bèye nekk membre ci daara ji di soxna Mbène Bèye ñu ngi lay nuyu te di leen ziar. waaw soxna Khady siyaaraat nañ la. mu mel ne ñu ngi la gis si wàllum ginaar gi ñu bëggoon xam rek liggéey bi ana naka ngeen koy doxalee. waaw santati Serigne Touba rek ak doxal ndigalu maam Cheikh Ibrahima Fall ci yóbbu ndogu yi ba tax na dimance bu jot ci weeru koor bi waa daayira Wakana Haqqan Facebook dinañ amal ay ndogu lu ci mel ni togg ay ginaar ay soosu fois boole kook ay jus ak yu demee noonu jox ko jaamu yàlla yi santee ko Serigne tubaa macha allah am na solo lool comme ni mu ko waxee rek euh, dimanche bu jot ñu togg ay ndogu jox ko jaamu yàlla yi ngir sant ci Serigne Touba euh, mu mel ni jamono ji ñu ngi nekk ci jamono ju ju doy waar muy jamonoy mbas bi euh, di laaj rek ci wàllum cet gi ana naka ngeen ciy doxee. waaw jamonoy mbas mi moom moom alhamdulilah te daanaka daal jël nañ matuwaay ci war yëpp am nañ am nañ ay gants am nañ ay masques et kon yaakaar nañ ne moom secteur hygiène bi moom amu amuñu ci benn benn benn jàq ndax lu jiitu mbas mi sax set dafa war te nekkoon nañ ci lu jiitu mbas mi moo tax daal amuñ ci benn problème ndax an nasaafatu minal imaan yi seet ci ngëm yàlla la bokk kon mbas mi taxuñoo set lu ko jiitu ñu ngi ci woon jël nañ ma yi nag bu baax a baax. ak sa macha allah am na solo lool. Euh, cet ci jaamu yàlla la bokk ba tey rek dañuy laaj rek euh, sona mbenn Bèye ci wàllum soxna yi ndax amoon leen ci benn jafe-jafe ci liggéey bi. ah côté boobu moom déedéet ñoo ngi ciy santaat sëriñ bi bu baax ndax daanaka daal soxna yi moom ñëpp ñëw nañ teel nañoo ñëw ñëw nañ en masse te ku ci nekk xam nga ne liggéeyub sëriñ Tuubaa bi moo la fi indi te yaa ngi ciy def sa kéem kàttan ñu ñaan rek gën cee amaat tawféexu sëriñ bi fi mu nekk nii moom alhamdulilah santaat nañu bu baax liggéey bi jaar na yoon macha allah. alhamdulilah yow it ñu ngi lay sant bu baax di sant soxna yëpp di ñaan rek lépp luñ ci def rek ñu daj. soo bëggee di seetaan suñu ay vidéo demal YouTube nga tapé a Wakana Haqqan Facebook nga abonné nag te bul fàtte ba si collecte notification bi dina waral vidéo bu ñu dugal nga mën ko am.